jekk-jekkal na sàcc ba tabax ay résultat am nee na bëgg-bëggu Macky Sall lenn la mooy jàll nag premier tour ci juróom fukk ak juróom ci téeméer boo jël wala juróom benn fukk ci téeméeri boo jël Macky Sall laataa loolu dafa fekk ay magistrat yoo xam ne nag retraité nañ mu bàyyi leen ca conseil constitutionnel ne leen damaa bëgg ngeen assuré ma ñaareelug mandat laata ngeen di dem ñeenti milliards ci suñuy koppar ma ne nañ ko ci affaire Petro-Tim bi daara wàdd njaag pareegul de nee na Macky Sall dafa taxawal ay banque créé leen def ci ay opération yoo xam ne xel sax nangu ci kopparug pétrole bi sama xel nag teey lool ci juróom fukk ak juróom benn milliard ci suñu koppar yoo xam ni réer na mër ci caisse de dépôt et de consignation yoo xam ne dafa daal nag tombé en faillite maanaam doxatul xibaara ngoog de maître Wade day caisse de dépôt et de consignation ma ne la faillite naa bàyyi si njëli Wade yemu ca nee na Aly Ngouille Ndiaye warta tëgg élection ci mim réew dafa bëgg nag askan wi jóg fipp ci dal ak jàmm Abdoulaye Wade lancé appel armée bi ak takk yi nee na ñu def ndax këpp ku ñu dóor jàppane la moom Pape du soppi ci a commission nationale bu transition démocratique waaye li ëpp solo mooy ñu dàq élection yi ndax itam mënuñoo tëggi élection Karim Meïssa Wade bokkul Khalifa Babacar Sall bokkul Vox Populi ne Abdoulaye Wade day laataa moo ñibbisi ab plan de guerre la taxawalal Macky Sall te xeex bi xeex bi Abdoulaye Wade nag mi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ba suk élection ya nee na bu élection yi weesoo it am nañ ab plan de guerre les échos yéeni kaay ne Abdoulaye Wade kay attaqué na tóor na waaye menacé na la ànd ak jàmm kay mane la partam la daal di teg fas yéene nag jiite jeu teg ci di menacer Macky Sall naan kon jàppali nag téeméeri téeméeri bakkan ya des d'Ivoire Kenya ak Guinée mënta am Sénégal loolu nelaw la de Sénégal gi jóg nañu te fippi nañu réew mi ko di jeenee Abdoulaye Wade day xar na tànku tubayam ci élection présidentielle du am ci réew mi 24 heures ne mayu leen dara moom Abdoulaye Wade nguur gi nee na nag daañu def kéemtalaay kàttan ba élection du am ci réew mi le côté jeen le côté jeenee Abdoulaye Wade kay jàppalewul kenn sabotage daal lay jàppale tey man la dafa ubbil yoon bi xàll ko ba mu ni yaa pour Macky Sall moo tax it Macky Sall moom ma ngay doxal le soleil yéene kaay ne njiitum réew mi dama nga woon ca Ross Béthio Dagana ak Podor foofee tapis rouge lañ fa laalal Macky Sall l'exclusive nit ya ko teeru ca Podor ëpp na bari ca waxtu woowu tribune yéene kaay ne ma Idrissa Seck day ma ne la coalition baag ña àndal ña doxal de ndax itam ñu bëri ña ngay di jëm ci moom rawatina nag ñoo xam ne ca nguur 2019 am na gan yu bees ku ci mel ni Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ñëw nañ jàppale si boobule coalition booba Macky Sall lañ ca Podor di ay digéem naan leen fii ki at Podor daañu ko désenclavé ab mur bu gudd lool vox populi ma booba de gaaye ña ci mbedd ba ku ci nekk nag dal ci kaw président moom Macky Sall ba mu demee ca diwaanu Podor dafa ne nag mbir maa ngi suqaliku Madické Niang ni ko déet ma ne la fuuta gii ma nekk day dafa mel dañ leen professeur Issa Sall dal ci kaw Macky Sall ci diwaanu Fatick song ko fa song yu métti Ousmane Sonko de song yi may song day léegi mu jeex ndax itam nag kenn ëppul doole bu dakkul kilifa diine yi nag wax ak Sall kii itam ñu bàyyi attaques yi man Sonko ak samay gaay daañu fayu dal ci seen kaw wal fi côté jeenee Ousmane kay mani la gaayaan ca kawam de ña ngay ngir xool nag nu ñu ko daane laas ne Assemblée nationale ubbi na nag ab chèque 39 milliards gaa ngi fi mu di waa Prodac Omar Faye leeral askan wi naqaru lool la ca Birahim Seck tudd Locafrique dañoo war a xam ni nag projet bi Green 2000 la ko joxoon waaye dañoo xam ni koppar gu mu doxalee projet bi amu ko looloo tax ministre des finances yëkkati projet boobee jox ko waa biir réew mi Xaadim Ba ak Locafrique ñu bëgg nag réerloo xel yi coow li nag dafa am ñaari Amadou Ba Amadou Ba ministre des finances ak Amadou Ba bàyyu projet buñ amé ci kenn ku ñu wara dal tay nak ci ministre de la jeunesse ba woon ma mbay Niang mom lañu wara dal ndax ko par jébbal ñu ko lépp ngi ci loxom Omar Faye ne kon wax ci wax ji mooy cin fuqul bënnul ana yax yaxu les éco yene kaay ne tey laa leen di xamal de coach Barma mu soxna yi ragalon lol ci réewum Sénégal lan la mujjé ak réseaux sociaux yi néna dal retraité na mom coach Barma dootul diffuser ben nak film jambour coach ne mission la amone ngir joyenti réewum Sénégal defaraat jikko yi nak bobu le mission néna dañ ma caam bu boowoo di lek xaalis nit ñi ak di violer ay soxna motax nak man Kocc Barma bàyyi naa kon gars yi Kocc nee na bàyyi na yendu leen ak jàmm Samsung bi leen di ñaax ngeen téléchargé